ndax it nag dafa def ci réew mi loo xam ne kenn def dajale askan wi dimbali leen muy murit muy tiijaan muy kum mën a doon euh, famille religieuse boo jàpp rek président de la dimbali na leen jàpp leen kon loolu dafa wane lu bëree bëri moo tax tey boo gisee euh, euh, sëñ bi waxe nii dafa am àll te yéen xam ngeen li may wax. Mhm. Thierno Basir kenn daanaka mosu koo gis muy wax. Mhm. man daanaka mën naa ne tey la première fois. boo fi dalee ñun ba léegi. Mhm. gis Thierno Basir muy wax di wax di wax di wax di wax di continuer. tey la ma sàmm. man barki bi fi ñëw pour gis ko c'est tout un problème. wérul. délégation yi fi ñëwoon yëpp bi muy génn di ñëw dafa génn noonu rek mais wérul. kon tey bu defee lii. wane na lu bëree bëri. kon ngeen xam ni. am nañ ko baax. Mhm. ñun waa mhm. nañ ko ñaanal mu yàgg fi di wér. Mhm. ñu jàpp ko téye ko. ndax suñ njariñ loolu mooy dëgg. waaye njëriñal Sénégal. jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal merci c'était euh, le maire euh, de la commune de Ngidila monsieur Djilo Aïda xaaral ma jël maas su maas ñëwee rek après nga ñëw da ngay xaar da ngay xaar Alaaji Maas Samb euh, le communicateur traditionnel. l'international quoi qu'on puisse dire je suis avec Alaaji Samb nga xam ne moom euh, c'est une personne bi nga xam ni on a plus rien à dire par rapport ak liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def Alaaji Maas Samb ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. ñu tey nga ñëw fi nga xam ne moom mooy sa kër. sa dëkk la dëgg la euh, waaw doom nga fi. Mm-hmm. sët nga fi. Mm-hmm. ñu fekkee li nga xam ne moom mooy la soixantième mm-hmm. édition de la ziara Thierno Bachir Al Mountakha Daha Tall. ñu gis ki nga xam ne moom mooy son excellence le président Macky Sall. ñu ngi génn ñu ngi noonu doogaa dem. ak discours bi nga xam ne tenir nañ ko. ci loolu noon lan nga ñu ci mën a wax Alaaji Maas. waaw kontaan bu baax ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi tey ñu fekk bi comme ni nga ko waxee. muy soixantième édition. muy loo xam ne yombul ñu di ko defal jàmbaar. sunu maam Muntaga Daha Cerno Cheikh Omar Fouti Tall. moom nag di sunu sakk. comme ñun ko waxe ñun yàlla dimbali nag chance ñu am dëkk moom. fii ci Marbat. muy koo xam ne si la ko koo suul. ndakaaru ñaar fukk ak juróom-ñaar. muy feeñu doomam guddi gu jot. naan ko jëli ma ndakaaru yóbbu ma Louga. ndax li may tunu bari na. Uhuh. bakkaar yi bari na. Uhuh. macha fi def tooñ yàlla yi bari uhuh. dama bëgg nga delluwaat ma njaamur. ah ba ko doom ji waxee président Senghor boobu moo fa nekk ci jamono jooju. Mm-hmm. dana ko mosoo gis kenn ku faatu. Mm-hmm. ñu koy sul di ko sulli loolu mm-hmm. mun na nekk. mun leen sama bàyyi dara du ci. ñu summi ko macha allah mu mel na mu meloon. ah mag ña ko fekk woon ñu ngi wax ne maanaam percal ba ah, parfum sikki ban ca defoon. ba mu taas lañ gis ñoo na ko indi ko Louga dëkk bu nu jaar. muy taw dëkk bu nu muy taw ba Louga gi di taw gàmm gi sax bu masaana jot mhm. danaan taw loolu sëñ bi danaan am noonu mhm. kon macha allah lu yàlla defal ñun mhm. xam nañu ko waaye bàyyi fi doomam ji baax ji mu Thierno Basir Tall ku baax koo xam si la ku ñàkk ñaan koo xam ne si la macha allah lépp loo gis mu koy wax bopp ah, jëmi boppam taxul waaye askan bi rek a tax kon loolu boo amee tey président Macky Sall ñëw waaye nag di tàggatoo di doon président boo xam si yàlla liggéey na ci Sénégal loo xam si la kenn ku ne gis na ko dama ne ku soj nag parfum du la xeeñ waaye li président Macky Sall def lamb daj la ah, kenn du ko jeex. waaw balaa ah. nga wax léegi. Mhm. tey discours ki nga xam ni moom mooy sëñ euh, Bas sëriñ Bassirou. Thierno Bassirou Thierno Bassirou tey. Mhm. Euh, tey discours bi yan jàngat nga ci am lan nga ci jàngat tey en tant que communicateur traditionnel. waaw jàngat bu am solo. boo xam ne si le lépp yàlla képp la. Mhm. boo déggee ni mu waxee. xam ne li mu wax yàlla kese la. ndax olof dafa ne wax da nga ciy fay bor baa nga ci leble. waaye wax bi mu wax. fayu ci lëb lawu ci dafay wax rek te yàlla rek tax gis li président Macky Sall def te bi mu ñëwee fii ziar yoon am yëpp comme ni mu ko waxee musta jël kaddu danaan ñaan waaye tey comme doomam la ñëw na di ko tàggatoo muy doon lu triste nag loo xam si le a ah moo tax mu seeñal kàddoom xamal ni ko nag dal xelam xamal ni ko ni fi nga jógee fii nga jóge tey Sénégal li nga fooy rëy ndax loolu da koy gën a ñaax ba président Macky Sall gis bu tëddee gën a nelaw ne man kat kon la ma def bu ma yëgoon gën koo yokk mm-hmm. comme def naa lu baax bu ma yëgoon gën koo yokk mm-hmm. loolu mooy mooy discours boobu mu def nga xam ne gën a ñaax xamal ko ne li nga def ci réew mi ñi jaar bari mm-hmm. waaye yàlla ci yow la ko jaarale nga def loo xam ne benn président def ko fi ko ci Fuuta def ko ci Ndakaaru waaye def ko ci Louga gii ndax boo xoolee suñu tali bii jëm Linguère dafa naa président yi fi jaar bari waaye président Macky Sall ko yàlla jaarale mu jaar ko suba gën a góorgóorlu ndax bu demee bàyyi wooy woowu macha allah liminant ñu lay jaajëfal yàlla na la fi yàlla bàyyi kontaan waaw waaw jërëjëf kii mooy jërëjëf incha allah Aïda Aïda ñëwal euh, le temps que ñu mën a kii Alaaji Massamb moom ñëpp xam nañ ko mu nekk un communicateur traditionnel bi nga xam ni euh, kenn du ko euh, présenté ci au niveau du Louga ou bien fi nga xam ne moom mooy adduna bi ak Sénégal ñi nga ak nga xam ne moom mooy suñu jigéen nga xam ne moom mooy Aïda Louga la femme battante quoi qu'on puisse dire bonsoir à toi. bonsoir yaa ngi cool. ñu ñëw fi nga xam ne moom mooy comme ni nga ko waxee saa fu ne nekk sa kër. yow ñu gis la tii nga nekk femme de développement tey ñu doon feetee li nga xam ne moom mooy la soixantième édition de la ziara euh, Thierno Albasir Muntaha Muntaga Daha Tall nga nekk nit nga xam ne nga ñëw sa kër tey gis nañu aussi tamit son excellence le président Macky Sall bi nga xam ne mi ngi doogaa euh, génn ci li nga xam ne moom mooy salle bi euh, yan jàngat nga am tey ci discours bi nga xam ni le président Macky Sall ak nga xam ne moom Thierno Bassirou ci discours yooyu ñu joxe tey Aïda Euh, discours bi li ma siy jàngal mooy d'abord je me présente de Aïda Sy Diop di Aïda Louga mm-hmm. mm-hmm. coordinatrice de la plateforme dialogue citoyen inclusif mm-hmm. donc euh, li ma jàngal ci discours bi rek mooy discours dafa daw yaram ndax président Macky Sall ku ko ku ko dégg tey mu wax bokkul ak ni mu daan waxee mais vraiment ñu xam ni rek c'est son excellence président Macky Sall dafa ñëwoon tey ci kër gi en tant que doom ñu rek ñu accueillir ko en tant que doom tamit ñu wax wax yu am ñaari kilifa yi joxalante ay kàddu yu am am solo soixantième bi mhm. cent vingtième bi cent trentième bi yàlla nañu fekk te muy nekk euh, njariñu askan wi mhm. di ñaan Sénégal gépp ci barke ci mhm. barke Thierno Bachir. Mhm. ci barke Thierno Mountaga Daha. Mhm. élection yi di ñëw. Mhm. yal nañ ko def ci jàmm. Coupe d'Afrique bi ñu jëm. Sénégal yàlla na ama ci ndam. di ñaanal Sénégal. di ñaanal Afrique. mais di ñaanal Louga. di ñaanal bépp doomu Louga yàlla def fi jàmm. def fi salaam parce que Louga dafa war nekk vitrine de paix. et dañu war a la paix. et la stabilité sociale. Euh, tey euh, ci loolu noonu maanaam li nga wax dañu war a prôner li nga xam ni moom mooy la paix et la stabilité sociale euh, ñu nekk ci Louga Louga xam quoi qu'on puisse dire euh, tey tàggatoo de son excellence euh, le président Macky Sall lan la la def en tant que femme leader dafa daw yaram vraiment il a a sorti par la grande porte dafa daw yaram franchement mm-hmm. Mm-hmm. parce que xam nga africain sénégalais xamul suur naa mm-hmm. mu dem moo ceex loxoom raxasu ba rafet jox ko torchon tey ji kado bi mu fi nekk fekkoon na dafa dem élection ñu ñu ko du ko mën a jot kàddu yi mu fi dégg bu dem élection ñu gagné ko du ko mën a jot donc dañuy ñuy xamal ni rek nguur kenn du ko ñedd vraiment on yàlla may ko gudd fan may ko wér jéego yi nga xamante ni si amoon na ko yéene bi mu amoon Sénégal beneen président bu fi ñëw yàlla na yeggale yéene boobu te def lu ko raw euh, ñu ngi terminé prépare li nga xam ne moom mooy les élections euh, mois de février euh, ñu ngi élection présidentielle février 2024 yan taxawaay nga ci war a am en tant que femme leader taxawaay ma ci am tant que femme leader fas yéene dem ci élection yi xaar conseil constitutionnel ni ñi ñooy candidat yi ñu paree man ak sama mouvement ñu xool kan lañ mën a ànd ñu ànd ak moom liggéey Sénégal. jërëjëf ñu ngi koy jëfal moom euh, ki nga xam ne moom mooy Aïda Sy mu nekk une femme nekk euh, bi nga xam ne euh, war nañ ko mën a waxtaanee ñu nar a waxtaan ak benn aussi tamit beneen daanan moom il a beaucoup de chose il a beaucoup de choses à faire ki nga xam ne moom mooy le grand Alsane grand maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Euh, tey nga ñëw fi nga xam ne ko en tant que doomu Louga ñëw sa kër mu nekk la soixantième édition euh, de la ziara euh, Thierno Al Mountaga Daha Tall Euh, tey ñu gis ki nga xam ne moom mooy son excellence le président Macky Sall def teewaay ak aussi tamit toutes les autorités locales à savoir monsieur le maire Moustapha Diop à savoir ki nga xam ne moom mooy le président du euh, nekk doomu Louga je pense que dégg nga li nga xam ne moom mooy discours bi nga xam ne moom mooy son son excellence Macky Sall wax na ko à travers li nga xam ne moom mooy Louga tey yan jàngal nga am ci bis bi tey. waaw ginnaaw bi ñu yàlla julli ci yonent bi. Mhm. di nuyu Sénégal di leen nuyu yéen leeral ndax bi ngeen ñëwee ci réew mi. Mhm. ci la lépp leer. ak leer di wax rek ni. Mhm. Mhm. ziar bi dañuy ñaan suñu borom defal na jàmm. defal ñu taw feex ñu ñu yàgg ko fekkee. ndax fekkee woon nañ ko daaw. fekke ko ren. yàlla nañ ko fekkee ay déwén yu bari. ndax leeral nag. bi mu dalee ñëw ci ziar bi ak léegi. ñëw ci réew mi. lépp ngi leer. di wax rek di sant yàlla di ñaanal Thierno Bachir Tall. suñu borom yàggal ko fi. loolu te mu wér mhm. ndax nag royuwaay la mhm. yàlla la xam arxuraan la xam mhm. diine la xam jàmm la xam lu baax rek la xam tama nga ca di wax ni di gërëm nag ki nga xamante ni si tey moo ñu may opportunité ñu mën a agsi ci jotaay bii muy leeral ak le ministre maire Moustapha Diop jàmbar ji nga xamante ni si sa xarit day bay waar bu baax baax baax baax ci dëkk bi ak ci ziar bi ak ci biir màkk yeeg gàmm yeeg jàkk yi maa ngi wax daal yàlla na yàlla yokk jàmm maa ngi nuyu Sénégal gépp di nuyu Afrique gépp di nuyu képp koo xamante ne si doomi Louga nga ak foo mën a nekk ci àddina di wax nag son excellence le président Macky Sall jàmbaar ji ki nga xamante ni si doyluñu ci moom waaye ngoram jomam fullaam faydaam fitam moo ko may moo mën a taxaw tey jàkkaarloog réew mi tàggatoog réew mi di ñaan yàlla saxal jàmm ci réew mi waaye moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla jàmm yàlla yokk ko jàmm yokk xéewal góor Marème Faye Sall di ko wax daal ñun Sénégalais yi ñun njàmbur njàmbur yi doy lu ñu ci le président Macky Sall jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal jublu daal yàlla fa yiw yiw yàlla jóg jërëjëf ñu ngi lay mi nga xam ne euh, on a plus à le présenter plan national et international nga xam ne euh, mi ngi bàyyi ci waaram euh, mi ngi bàyyi waaram ci li nga xam ne moom lay def moom mooy à travers la culture au niveau de Louga di rappeler aussi tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy les téléspectateurs et aussi nos amis internautes qui nous suivent sur Leral TV ak Leral point net ngi fi nga xam ne moom mooy Louga dëkk Baye Jili ak Sëñ Sam ñi nga xam ne fi nga mooy luga dëkk fi nga xam ne moom mooy Thierno Mountaga Bassir Tall euh, fi nga xam ne tey moom mooy dañ fiy teewee li nga xam ne moom mooy la soixantième édition euh, de la ziara Thierno Bassirou euh, Mountaga Tall ki nga xam ne moom mooy son excellence le président Macky Sall ñëw na fi léegi def na fi benn discours bi nga xam ni ñu ci bëri ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci jotaay bi seen xol seen xol tooy na par rapport ak li mu wax parce que dégg nañ ko moment bi nga xam ni nee na laaj daf daf doon laaj ki nga xam ne moom mooy no Bassirou Tall ni ko lan nga bëgg lan nga bëgg mu def ko Louga mu ni ko tey li ma bëgg moom mooy nga jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci yeneen dëkk yi yeneen dëkk à savoir Touba à savoir Thiénaba à savoir mu ni ko ki nga xam ne moom mooy son excellence le président Macky Sall nee na ko ki nga xam ne moom mooy Thierno Bachir mosu ko ñaan dara Thierno Bachir aussi tamit tey ni mu waxee ni mu waxee tey euh, daw na yaram ñi nga xam ne moom mooy ñi ngi interviewé am na ñoo xam ne nee naan euh, c'est la première fois ñu dégg Thierno wax Thierno dafa wax parce que tey ñëpp xam na ni moom mooy la dernière édition bi nga xam ne Macky Sall dana ko en tant que président la République euh, parce que dañuy dugg ci li nga xam ne moom mooy année électorale la ñu def li nga xam ne moom mooy année électorale dañuy tàgg ki nga xam ne moom la fi yàlla teg mu war a nekk le cinquième président du Sénégal moom la ñu war tàbb ki nga xam ne moom moom la war a tàbb tàbb mu nekk yàlla na nekk koo xam ni euh, dana déggal askan bi koo xam ni euh, askan bi dana jàppale askan bi koo xam ni aussi tamit askan bi ñoom ñoo ko fal euh, mu nar a liggéey li nga xam ne moom mooy askanu Sénégal de ce fait yooyu noonu noonu déggoon nañ ko parce que tey xol tooy na ci discours bi nga xam ni Thierno Bachir Tall wax na ko parce que ñi nga xam ne ñoo doon déglu ñi nga xam ne ñoo doon seetaan ñoom ñoo ñoon kenn ku ci nekk am na li mu wax ko ki nga xam ne moom mooy son excellence de président Macky Sall ci kaw loolu noonu euh, gis nañu aussi tamit euh, cadeau bi nga xam ni la famille omarienne famille ko jox ko ki nga xam ne moom mooy le président Macky Sall à savoir def nañ ci benn sijaada ba nga xam ne jox ko benn kaamil euh, nga xam ne moom mooy suñu borom subhanahu wa taala moom mooy suñu borom subhanahu wa taala parce que tey comme Macky Sall li ko son président son excellence de président Macky Sall ni ko waxee nee Euh, dama fee ñëw en tant que doom dama ma fi en tant que fee ñëw fii sama kër la tey Lougaatois ci bëri ñoom def nañ li nga xam ne moom mooy seen déplacement euh, def seen déplacement ñëw fekkee ci li nga xam ne moom mooy jotaay bi di jaajëflaat aussi tamit euh, ki nga xam ne moom mooy Thierno Seex mi nga xam ne moo yor organisation bi te mi ngi koy jaarale ci yoon ak aussi tamit nga xam ne dañ koy woowee li ñëpp ñi nga xam ni ñi ngi ci organisation bi parce que tey dalal son excellence président Macky Sall yombul parce que c'est le président de tous les nee na président dana jiite ñi ko fal ak ñi ko falul moo tax tey bi ñu ñëwee tey fii yaatu woon na ñëw nañ fekkee nañ ko li nga xam ne moom mooy cérémonie mi euh, gis nañu aussi tamit di discours bi jël nañ ñëw na maire yi ci commune bi yëpp ñëw nañ euh, ak aussi tamit le président du conseil départemental moom aussi mi ñëw na ak yenn ci directeur ñi nga xam ne ñi ngi niveau ñi ngi nekk au niveau de Louga euh, ak ñi nga xam ne ñoom ñooy le premier ak le ministre démb mi ngi fi woon parce que moom ñëpp xam na ni moom il fait partie de la famille omarienne parce que moom aussi tamit Amadou Ba moom aussi tamit ñëw na fi démb dañ doon waroon def bu njëkk soo doon xool euh, président moo doon ñëw le vendredi le ministre de l'intérieur ñëw aussi tamit li nga xam ne moom mooy samedi mais cette fois ci dañoo jiital li nga xam ne moom mooy euh, affaire yi le président moom moo ñëw li nga xam ne moom mooy samedi dem le premier ministre Amadou Ba mi ngi fi ñëw le le ministre de l'intérieur aussi tamit ñëwoon na ñëwoon na ci li nga bokkoon na ci délégation euh, président ak nga xam ni

Leral TV fii lay leeree eh, di jaajëfalaat aussi tamit toute l' technique à savoir euh, Babacar Diop ak aussi Ousmane et aussi tout le monde tous ceux qui sont là. ñu ngi leen jaajëfal aussi tamit on a vu le maire de Kelle Gueye aussi tamit le maire euh, de Ngidila euh, Alhaji Djililo aussi tamit il était parmi nous ak aussi tamit ñi nga xam ne moom mooy le maire de Sieur Wareba ainsi de suite ñoom ñëpp ñëw nañ bokk ci jotaay bi parce que tey Louga tey <coughs> excusez-moi Louga tey gérer nañ ñi nga xam ni moom mooy administration bi yëpp ñëw nañ parce que c'était la présence de son excellence euh, le président euh, Macky Sall suñu mënee am euh, la régie pour terminer ak Alhaji Modou Mbaye suñu on peut terminer la régie on peut on peut terminer avec Alhaji Modou Mbaye mi nga xam ne lii aussi c'est un communicateur traditionnel moom bokkoon na ci si ma fekkee ci dañuy jéem a gérer ki nga xam ne mooy Alhaji Modou Mbaye su ma nee nekk bokkoon nañu seen ñi yoroon ñi nga xam ni boo yoroon nañ microcentrale yi wax ju wax ju rafet ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk au niveau de Louga parce que ki nga xam ne moom moo le choix de Alhaji Modou Mbaye son excellence le président Macky Sall bu mu waxee ba pare euh, ku ngeen ma mënee jëlal Alhaji Modou Mbaye s'il vous plaît euh, on termine avec euh, Alhaji Modou Mbaye s'il vous plaît Alhaji sa doom la. damay ñëw fekk la Ousmane topp ma je suis avec mon père que je respecte mon père maa ngi lay nuyu. Oh. waaw c'est ton fils qui est là. gannaaw bi ñu sant yàlla. julli ci Seydina Mouhamad. ñu ngi fii tey ci kër Thierno Bachir Mountaga Daha. Mhm. à l'occasion de la grande ziara de Thierno Mountaga Daha Cheikh Omar Foutiyou Tall mhm. bis bu rëy bii nag président de la république defal nu honneur mhm. ñëw seet si baayam mhm. ñëw seet si sëriñam ñëw seet un grand chef religieux boo xam ne li mu wax ñëpp dégg nañu ko bëgg Macky ñaanal Macky jàppale ko gunge ko ba mu am résultat bi mu am Macky nag ini fi ñaari kàddu ñëw naa di leen ziar waaye maa ngi tàggoo maa ngi dem xol yëpp tooy ndax lan Macky day nit ku baax yàlla na Sénégal xam kan mooy Macky Sall yàlla na ñu xam lim nu liggéeyal yàlla na ñu xam fi mu jëlee réew mi ci fukkaat yeeg ñaar ak fi mu koy indi maa ngi koy ñaanal nag mu am lu dàq fopp li mu passé mbub mi wax na ko da koo sol waaye da koy summi passé par la grande porte génn ñëpp tàcc ko mu dem que le meilleur gagne dans ce pays notre cher Sénégal euh, père balaa ngaa dem le discours du président Macky Sall ak nga xam ne moom mooy Thierno Bachir tey euh, discours yi yow en tant que communicateur traditionnel yan jàngat nga ci am loo xam ne ñun xale amuñu ko ci. discours yi discours sumeeku la. li sëriñ bi wax ci Macky. ni ko teral nga këri diine yëpp sama ndigal. waaye dama ne la na nga cëral ñëpp. soo paree lu ma am jël sama ci xajee. Macky nii. bi ma tàmbalee defar naa këri diine yëpp. waaye fii defuma fi dara. loolu ab discours la boo xam ki ko mhm. moo ko war a dégg. Mhm. xam ne am na lu ko dese woon. te mhm. muy kër gii. famille Thierno Mountaga Daha. muy kàddu goo xamante ne ci diggu mbooloo la ko waxee àdduna bépp jël ko. kon kenn nëbbutuwul. macha allah boobu disque rural moon mooy li ma neex. mooy li nga xam ni kon honnêteté la. ak vraiment doylu. ak i toppatoo kala xam ni réew mi. ñun ñu ko bokk mun ñu koo xëccoo kenn ku ci ne lu ci si wërsëg da nga ko jël. jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal suñu papa El Hadj Modou Mbaye eh, mu nga xam kenn du présenté au niveau national et international le communicateur traditionnel de la MEDS euh, sëñ ñu lay nuyu. maa ngi lay fay. Euh, ñu la bàyyi nga présenté wu ñu ñëw ci a waxtaan bi. man mooy Mamadou Sow maire de Gandé département Louga arrondissement Kër Momar Sarr. Euh, avec la sous la présidence du son excellence le président Macky Sall mu ñëw fi teewee li nga xam ne moom mooy li édition bi tey en tant que maire de la de la d'une commune bi nga xam ne nekk nga ci région Louga euh, département de Louga euh, tey yan jàngat nga am ci discours yi nga xam ne le président son excellence le président Macky Sall wax ko ak nga xam ne moom mooy euh, le Thierno Thierno Albachir Moutaga Daha Tall. vraiment lu yërëmtalul lu doow yaram la. parce que président Macky Sall li Thierno Bachir wax léegi mo am. parce que Macky Sall kenn ku ne xam naa ne nit nit ñi la nit ku baax la. nit koy am yërmaande la te soo yëgee sax problème mu rek di rek mhm. waaye nag dafa am ci biir loo xam ne li buur aayul daf yee mhm. danañu àgg foo xam ne ñi nga xam ne ay éli lañ ñoo xam ne mooy ñooy ay maire département locaux. Mm-hmm. mosuñ am dugg fi am jàmm ci dugg bi. loolu itam lu ñu naqareel waaye campagne Thierno Bassirou yëg ko. Mm-hmm. loolu ay lobby la rek yu nekk ci biir dëkk bi. Mm-hmm. ñooy def noonu pour maire yi bañ a am présence ci président. bon ndax loolu moo tax ñun amuñ lenn luñ naqari ci président lu dul lu muy dem. te képp ko ñuy booleel. soo ñëwee ci nun wa waxtaan ak nun comme ni mu doon waxtaanee moom parce que Macky Sall ñëw na gàdde ñetti yoon ba muy wut. Mhm. bon nag man soo ma soo la neexee woon ay foto yu mu foto woon. 2009 lañ bëgg a commencé ànd ak Macky Sall mhm. man ak Thiamène Kajoor ñu gañeel ko. Mhm. bon nag boobu léegi ñoo ngi ànd ak moom des députés yi passé ni Gande ak Sire moo ci gën ne département Louga parce que man ma am 73 euh, virgule 8 pour cent. macha allah waaw loolu moo tax na ñun président Macky Sall dëgg am na ñoo xam ne ñu sax bénéfice wu ñu waaye bénéfice nañ parce que soo dee léegi yow mayulu dara itam defal na saako mhm. boo ndax loolu dañ ciy kontaan parce que population bi lañ ko nekkal mhm. ñoo ngi sant ñëpp di gërëm te mhm. di sant seen leeral parce que leeral mu ngi leeral askan yi te maa ngi kontaan ñoom parce que man benn télévision mosuma dëkk micro mu ne ma am waxal soo bëggee mën nañ ñëw soo bëggee euh, suñu directeur mi ngi nii jëlal numéro bi ñu ñëw la fekk la Kandé jël fa émission dinañ ko def. Mm, jërëjëf mm, euh, jërëjëf ñu ngi lay sant di la jaajëfal kooku moom mooy euh, maire bu Gandé di jaajëfalaat ñëpp di jaajëfalaat aussi tamit nos téléspectateurs de Leral TV ak Leral point net ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy euh, ci àdduna bi yëpp di jaajëfalaat ñëpp di ñaan yàlla mi nga xam ne moo am jàmm yàlla ñu yàlla defal jàmm yàlla defal jàmm ci Sénégal merci aussi à toute l'équipe de Leral TV et Leral point net yàlla mi nga xam ne moo am jàmm yàlla ñu yàlla defal jàmm on se donne rendez-vous incha allah jëf